mbër ca sampi la yàlla may dere na ko may bañ na ko dindi àndal signal signal signal signal Agade, Matan Twitter, soxol na amateur yi Kevin Kunta Italie la jóge Flex Talinding la jóge ñaari mbëri ku ci nekk tey am nga loo indaale yàgg say mbokk waaye ak lu mënti di doon ak lu mënti di xew ndam li génnul réew mi ñaari doomi réewu Gambia la diggante Flex ak Mama Lamine yàgg nañu ko waajal waaye Double RG gàcce ngalaama liggéey bi am na solo li ñu mënoon wala boog li ñu diggoon askan bi mooy Ondi 29 ak lu mënti di xew lamb ji dafay am loolu la ñu jëfe tey fos combat bi moom la ñu war a ñëw àndal diggante bébé Ama ak bébé Sa Kajoor mu ngi noonu ñu ngi fii ci Serekunda West Mini Stadium. ah. diggante Mama ba honorable honorable moo ngemboo ngemb bu xonk bi wan ñu gannaaw bébé Sa Cadior arbitre bi soufflé na génn seen diggante combat bi du dóor mbapat la fos combat ci bés bi moo ngi noonu dabul arji ñooñu fi dajale tay mbokk yi xale yaa ngi lewaatoo ñaari mbëri bu ñu jàppante mu jeex laa ilaaha illallah bébé ama bébé ëmma moo ngi jël ngembu bébé saa moo ngi jël ngembu mais bañ na bébé saa kajoor moo ngemboo ngembu bu ñuul bi ah sol na ko Bébé Sa Kajoor sol na sol na ko sol na ko ndax day siggeeg moom am déet ah da ko ndengeeñ sol bu amee ndengeeñ sol bu amee mënta am ñaari mbër yaa ngi ci kawam waa lii lan la ni bëre wet la arbitre soufflé na arbitre soufflé na waat na waa ñi ñu ngi fi yàggal de waa li yàgg na de ah bébé ama yaa ngi maye sa bopp la ilaha xale a daan na ko laa ilaaha illallah jël ba na laa ilaaha illallah laa eh, kaay kaay kaay kaay kaay e eh, taxawal e eh. e boy e e e loo bëre loo nga ak moom kii waxum loo loo bëre moom loo bëre moom laa ilaaha illallah la ilaha illallah waaw loo moom bi nga xam ne maa ko dàq bëri bu la wax si ko koo jëm yaa ngi des rek. mais dañoo gis nga taxaw ma mel ni man boobu sax maa ngi naan yaa ngi saraxa sa bopp. saraxa barki yàlla kii fo for laaj bu jàmbaar mag seen Tuubaa Mbàkke bi mooy sa ñaata combat trois combat benn defe ñaar benn defe ñaar victoire kan moo nekk sa kanam ko soxla léegi ci booy booy boromam ñu bëri doole ma koñ bi jaaba booy bi dafa mën a bëree booy bi dafa mën a bëree billahi noonu ah ah. eh maam lam waaw naka la fa demee noonu. ah. ah. mais yéen waa Baara ngeen. waaw waa Baara ngeen guddi guddi Baara. fa demee noonu. ñàkk jëriñu. ñàkk jëriñu. mais ñii ñoo ànd ak ñàkk jëriñu Malissa. mais man gisuma yëngal bi. ama dina ko doon mu daal du ngeen am na. ana ngeen ana ngeen. ah. ah. ana ñu ànd ak ana waa Flex. allo. yëg bi lan la gis nañ ne ànd ak say mbokk ñëw macha allah mu rafet tey lan nga yëg. ah tey ana kontaan rek. ah sant yàlla rek. am di gërëm Double RD rek. ah ñu defaat luñ defoon. ah ñu delloo buum bi si boy boy ba. am ñun luñ ma woon rek mooy cofeel ak mbugeel. seetuñ dara si man ñu ne suñ suma liggéey ak suma liggéey ma suma waa gox ñoom loolu gis. so loolu moo tax gars yi ma ñu ne as far man maa ngi dunda ñoom every year seen seen drapeau rek dinañ ma bu am jëm baa ngi noonu dugg sil ay ca dugg sil ci biir Babacar Man Sali mu ngi noonu drapeau bu am solo. E AK 47 sampi arbitre génn na seen diggante ñoom ñaar refle bi génn na seen diggante ñaari mbëri la waa Toba commencé na waa Toba commencé na oxo AK sampi waa sampi bu Talinding AK sampi sampi AK 47 moo ngembo ngemb bu am girin bi ah du dóor mbapat la <laughs> du dóor ah waru ko dóor waru ko dóor waaye sampi nag am na woonin AK47 sampi sampi moo nu won gannaaw ngemboo ngemb bu ñuul bi ñaari mbëri ñi ngi jàppante ñi ngi damante ay baaraam AK47 waaye ndax dox na dina dox wala du dox AK47 war na laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah see tet tet tet tet tet tet tet waa lii la la lii Yeah. Baye Birame moo koy indi lii lépp ci tegtali la ba rek moom man lamb dama sonn bii mooy sa ñaata combat suma deux troisième combat ñaata ndam ñaata defet taxawal taxawal benn place rek tuuti rek ñu wax bi ma sonn billaa walaay talaay ñii aw ma seen fay suma fans yi fay mais mais gis ngeen bëre mu dóor la waaw daf ma dóor nee na yaa ko njëkk door weem bi dugg suma bët bi après si ma dem arbitre jagalal ma ko ma ñëwaat gars yi après buñ ma ko moo nekk sa kanam man suma kanam lamb boo man dama am mbooloo dama mboo mbooloo te dama bëree dama daan dama booyi jël baax la na la booyi jël <laughs> <laughs> a lii moom foog naa ne moom ko xam MC Thiam xam nañ ko si affaire yi euh, bëri di euh, first time may ñëw si lii ba euh, dem liggéeyam ñu ko organise dari ci nga àndal waaw dari suma doomi ndey la suma xarit la waaw moom moom tey moom foog naa tey moom moo dal tey waa ak maa ngi ànd tam Kansilo euh, Jokko moom tam waa Kansilo Bundu bi tam mu ngi fi tam ak waa KMC yëpp tey ñoo ma tar tey ñoo ngi fii waaw délégué délégué ni KMC la ci kanam ah ci kanam kon waaw ci kanam jërëjëf thank you very much yokku baax nga suma xarit nga jaajëf suma xarit nga jërëjëf Where are you coming from? I'm from Slovakia originally. La Ilera, Slova, Slova? Slovakia. It's Slova Italy? No, no, it's not Italy. I live in Italy, but I'm originally from Slovakia. Today you come to what wrestling? Sorry? You come to watch wrestling? Yeah, I come to watch my my boyfriend, Kevin Kunta. Kevin Kunta is your boyfriend? Yes, yes. Oh, today you, you why are you feeling? I come to support him. I'm feeling very happy. I'm so proud of him that he made it up to here and that he is Gambia because he is Gambian and also maybe to share this and spread it to all the world, you know, so that people can see from Italy, from around the world that this is something special here in Gambia. And I'm very proud of him. God bless you. Yeah, thank you. And God bless this fight, this, comp Thank you. Thank you so much. jiite làmb ji ban yëg-yëg nga am ak lan ngay ban message ngay joxe waaw gannaaw bu ñu nuyoo sang eh, sang sang yi sant suñuy ñaari waajur yi eh, di nuyu njabooti làmba yëpp di nuyu kilifay aada yi ak kilifay diine yi di nuyu his excellence yi président yi réew mi jiital si suñ ministre ñëw ba si national sports council waajal si dex office of wrestling nuyu presse bi muy njabooti làmba yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay eh, di am kontaante ak mbégte bu baax a baax di santaat yàlla buur bi nga xam ne moo ñu tey ñu am tal ba mun a toogaat fii tey dañuy compter li nga xam ne mooy njëlbeen làmba wala ñaareeli bés si làmba kon loolu dañ koy delloo buur bi nga xam ne moom la soob mu bàyyi ñu fi euh, comme li nga wax rek lu rëy la am na comme li ma yëg rek mooy mbégte la waat ndax loo daan def nga géej koo def dem ba ci biir na ma ko kon yaakaar naa si saison bi ubbee ba ñëpp toog dina nekka loo xam ne fierté la euh, message bi ma cee jàllale rek mooy euh, ñu ngi ñaax ñaax li xam ne mooy nguur gi ndax jamono buñ toll nii gis nañ ne baaguwee bari na torop te gëm naa ne it's important pour ñu jàllale fa message bi ndax njabooti làmba bari na ay ndaw kon nañ jël youth empowerment si làmba ndax mu mun a dimbale ndaw ñi bu baax ñu mun a toog ci réew mi ndax gom naa ne su dul loolu ndaw ñi dinañ génn dem bitim réew te soo xoolee lay dem bitim réew su dee téeméer la 75 bi yëpp des nañ ci géej gi. kon du loo xam ne luñ rafetlu la waaye ñu ngi ñaax nguur gi ñu gën a gëstu làmba dugal ci li nga xam ne mooy koppar mu nekk youth investment bu ndaw ñi mun a toog fii ci réew mi liggéey beneen bi ci des nag mooy ñu ngi ñaanal promoteur yi di leen ñaanal wér ak wér di leen ñaanal seen event yi ñu dégmal yal na leen ci yàlla defal ndam di ko ñaanal tamit ñi nga xam ne mooy mbëri ñoom ñi nga xam ne ñoo ci am ay contrat ñoom it nañ bàyyi xel ndax ki liggéey xaalisam jox la ko pour nga bëree na nga am ngor ba bul dem yoon yi gannaaw ak xaalisam parce que yoon bi lu ne xëj na ci te boo ko xasee ba jël ba dem rek xamal ne boor mu ngi ci sa ndoxal te amaana nga rëcc amaana nga faatu boo faatoo yóbbaale nga loo moomul boo rëccee it amaane nga mbor boo xam ne mbor bu la toppa la kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu boo na si message bi nga xam ne man moom lay jaalale nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax loolu am na solo waaye fi mu toll nii tembe ñaari event lañu ñu amagun coow li bari na ñëpp ñoo ngi naan luwaay yi luwaay yi luwaay yi euh, euh, dëgër dëgër këj la def euh, loolu tamit lan nga ci gën a dalal xelu ñi nga xamante ni ñoo ngi dégg te xamuñu lan moo waral lu ni mel. waaw bàyyi lamb man loolu de su ma sañoon yow yi dina la may nga ansal ma ko ndax yow fekkee man ansa naa ba sonn am ah, nga yow yow fekkee nga dëgg la kon yaakaar naa ne boo fekkee rek bu ñu waxatee rek ne leen ne ah, fekkee woon na man kay mere nañ ma sax waaw mu ngoo ndax ñoom ñoo ne luwaa luwaa dëgg la nag luwaa moo fa nekk rek dëgg la luwaa moom dañ ko dee defar teg ko fa waaye léegi-léegi di nga am fooy toolu nga use flexibilité waaye boo demee bay def flexibilité mu indi ay yeneen bañ la ne delluwaatal si luwaa yi a ah, boobu dafa yomba fu nekk kañ nañ am ngor rek xam ne eh, ñun amuñ sañ-sañu def kenn loo xam ne luwaa waxu ko lépp luñ def rek dafa fekk luwaa ya ko wax te ñoom it nañ am ngor bi nga xam ne lépp lu luwaa wax rek ñu def ko dafa yomba jéegale ne ak baalale am na fu ñuy toolu mun naa am waaye li nga xam ne moom la luwaay wax moom ren ji bu soobee yàlla yónni bi na ku ne fexe dof ko rek ndax loolu mooy li fa nekka ñoom teel la ñoo jooy di jooy commencé na ah ñoom ñooñu toogoon nañu ne dañ bëgg ñu doxal lu waaye bàyyi foos dëgg la kon yaakaar naa ne buñ jooy nañ muñ rek dëgg la te te tamit tax goo ma ne lu métti la métti wut lu waala rek lu waala rek am na lu mu la wax defal loolu rek mu yomba rek nga continuer jërëjëf jay ne ñi commissaire commission Rasta dat combat baa ngi noonu ci diggi géew bi arbitre bi soufflé na commission Rasta moo ñu won ngembo ngembu lu weex li MC Thiam yaay doorante nañ jërënte commission Rasta commission Rasta commission sol bañ la jël la bi laa ilaaha illallah commission Rasta commission Rasta combat diggante Rasta ak commission na tànk bi Rasta jël na tànk bi commission rasu na génn na saako yi waa lii ni commission Rasta laay laay la la arbitre bi na leen dugal nañ si déew bi bëre dóor la commission Rasta jël commission solo noonu euh, euh, waaye ba tey rek comme euh, kilifa bi mooy alaaji Abdoulaye Bojang dëkk officer of Rasuline yàgg ngeen koo dégg moom nag dafay général rek moom àndul fenn ñëpp la bëgg ñëpp la bëgg ñëpp di am jàmm làmb Gambia di dem ci kanam tey nag ñëw nga ci li nga bëgg namoon nga ko xam naa ne yenn saa yi nga dawal sa moto ba gis ñaari ganaar yuy xeex nga taxaw di seetaan ndax bëre boo bëgg waaw waaw <laughs> kontaan naa trop alhamdulilah rabbi alamin alhamdulilah rabbi alamin eh, man maa ngi jokkee na ku nekk wàccuwaayam ah, di nuyu ñëpp di nuyu borom réew mi jiitu réew mi mu Adama Baro ak ah, ministre of youth and sport waa baa waay baaci eh, di nuyu tamit suma office Marcel Mendy ak staff yi fa nekk yëpp nuyu suñu président bi Ah, Serigne Modou Faye Thiam. sa bopp tàngoon na nag si AGM bi. waaw waaye boppa bi tàngu dama kontaanoon xam nga AGM alhamdulilah noonu la war a demee AGM man suma boppa tàngu dama kontaan parce que li yow mooy AGM warta yomba yaa dugal si débat boobu waaye naa ci wa tuuti AGM warta yomba AGM war naa nekk loo xam ne na ngeen naa ñëw ngeen wa yu dëkku amoon naan fii far ak fii laa nii moo tax may wax da ngaa wax nga teg ko ci yoon te amoon parce que lii xew mooy August Catering ñoo ñoo moomee affaire yi kero ñoo ñoo moom lengeey buñ fa jógee nag caamoo moom lengeey soo kero ñoon tamit luñ war a joytu a ah, luñ fa war a wax loolu fa wax soo kontaan naa trop kon ko jaala na alhamdulilahi rabbi alamin waaye buñ dellu see tey tey bés bu rëy la tey bés la kon ko tey mooy ah, mooy la ñoo tàmbalee laama te ñëpp ñëw kontaan nañ ci trop ñu ko commencé si bisimilah rahmaani rahim yan na jee ci alhamdulilah rabbi alamin bu ren waree ñaaw yan na génn déwén te di wax ñëpp ne a ah, li ma wax à CETES mooy nañ def discipline discipline moom maa ko saako si ñëpp muy fan si muy mbëri muy lu nekk ba pare tamit ah, ci nguur bu ma nekk tamit maa leen di wax ne tamit ñu bàyyi xel bu dee dina mun a am industrie boo xam ne dañ ko mun a pompe si lamba pour mbo ndaw yi mun a nekk fii parce que ñuy lambi gam ah, ndaw yi lambi Gambia ñoom ku nekk dafa am métier am na ay kapinta am na ay mécanicien am na ay drivers ñëpp a fa nekka kon suñ fa pompé xaalis nga gis ne mbër yi toog fii dafa dimbale réew mi parce que fu mu nekk nii baaguwe bi am na doole torop kon nag konko loolu la tey bés bu njëkk bi la lu ñoo wax mooy ñu ngi kontaan torop gis nañ fi tamit ah, suma raka bu baa Thiam moom coach la ren play na ba mu ñëw si first division maa ko cee bu baax a baax a baax kontaan naa ci moom di ko wax ne tamit you ñëw na si first division yan na jël trophy bi yan mu gën a dem ci kanam waaw lampu yow tamit maa laa gërëm bu baax ak mii fortaani si fi nekk yëpp ñoo xam ne ñu ngi jàllale message ñu ngi kontaan si ñoom jërëjëf waaye nag bëgg naa ñu continuer suñu waxtaan daan di def waa lambi démba ñu waxtaan ak lambi tey ñu mélangé ko mu dem loolu dina baax torop waa jërëjëf. yow suñu papa nga suñu xarit nga. jërëjëf lam alhamdulilah. kilifa gi coach. coach dañ la introduce rek ñu ñaanal la ndam ban message nga am pour jox ko ndaw yi. waaw jërëjëf maa ngi sant yàlla yow moom dama la déglu toujours si sa programme bi si Star FM sant yàlla xëy na bii mooy first time ñu gisee du ma la ñëw bëre lu bari nag bu ma mujjee ñëw si daan si bëre mooy woon Leket ak Oenta stadium si laa gëj a si daan bëre ba tey waaye sant yàlla ñu fekk fii ki nga xam ne. lu ma mun a am si sports mun naa si loxoom la jaaree parce que jël bi ñoo nekk xale jox ma tiimam ne nekk si côté côté gi si paak bi fii ba yàlla isi lim isi sant yàlla li ma xale yi rek mooy eh, yëpp liggéey la rek waaw liggéey moo gën a óor lu mun di xew nañ fas jom xam ne ñu am loo mun di uti da nga bëgg a am fii waaye li nga uti soo ko munee am fii nga toog fii pour génn sport rawatina làmba bu ñëpp xatalee làmb da ngeen yaatal làmb ban message ngay gën a jox mbëri ak sapota yi pour ñu gën a bàyyi xel tamit paak bi. waaw asalaamaaleykum gannaaw bu ma nuyu sa laajte bi am na solo trop. so li ma mën a wanoon mbur yi ak um, supporters mooy ñu xam ne sport dafa boole sport dafa dajale tasaarewul noonu amut understand ay adversaire lañ waaye duñ ay noon so suñ ñëwee yar ak teegin lu mu la may du la ko xañ understand so ku ñëw pour support mbur nga dal understand nga support ko loolu moo ko gën a encourage ñi nga nekk di def yéen a yoo xam ne kon facilité bi ku ko fi yaaxa tamit yaaxaluloo bëri rek yaaxal nga football yaaxal nga basket ko sport facilité la soo yar ak bi dal discipline dafa baax waaye nag li ma wax mburi seen côté liggéey bu baax understand nga jaalaaji am na si solo waaye liggéey respect li nga def parce que moo tax ngay train ay weer ñëw simeeku ñëpp ay junne junne bët tiim la di la xool kon loolu war nga ko respect respect promoteur bi génnee xaalisam jox la respect ñu ñëw toog di la seetaan dafa am solo torop ba pare gëm sa boppa te dafa am lu am mbër lu mu def rek supporter sami loolu lañoo ñoo toppa su wanee discipline yara teegi na dal supporter sami loolu la ñoo def su wanee wanee leneen tamit loolu la gaay di def so baax na daal discipline man daal dama ne si lu mu bokkut amul njëriñ ñu bàyyi ko fa so ñu ngi ñaan gaa yi see jàppa boo mu tasi gën see jàppa yéen it ngeen gen see jàppa because Gambia Wrestling Association bi moom ngaa cee ngaa la ma ñooñu moom mooy ñun understand nga caam suma raka la suma raka la suma personnel xarit la alpha suma raka la suma personnel xarit la jil ah, si apply kooku moom daf ma moom suma waay replace yi def kañ moom bon ñun bi bi ñoo nekk xale dañ dem fële euh, naka la arène Babou Fall di root ndox di dugg waa roose ñu ñoo bàyyi ñu seetaan soo kon lu bokk si ñun la understand soo ñaan yàlla rek ñu gën a yaatal Serekunda West moom mu ngi fi sport facilité la du pour football rek dëgg la football nag moo ëpp a doole ngum lu ñu war a nangu la waaye yëpp lañ ñun si yëpp la ñoo jàpp soo te su ma la waxee ne la paak bi fii pour li ñu am si xaalis. Mhm. pour mun a toppatoo paak bi ah, wax dëgg yàlla su su football indee hundred dollars lamba indi na sefin kon lamba daal mu ngi contribuer wallaahi azim so moo tax ñu ciral làmba di ñaan yàlla affaire bi gën a yokku understand pour mu si nañ gën a ñëw di ñaan tamit sponsors ñu ñëw jàppa si mu gën a ñaatu yow di la jaajëfal because gis naa seen liggéey yéen tamit waaw yal na leen yàlla yombalal lépp incha allah yàlla jàppa si ba eh, ñu raw Sénégal. incha amiin rabi yal na yàlla def lool. incha allahu rabi nit ak genn wàll amul nit rek moo am. waaw. yàlla di nekk instant. nga ci KMC. yéen ko loo foog yow foog ngay fanaan. ñàkk bi noonu. Thank you. xaalis dana jox. ñàkk jariñu ñàkk jariñu ama bu Tamba spécial combat ñàkk jariñu ama bu Tamba spécial combat ñàkk jariñu moo wan gannaaw ngembo ngemb bu am lu ñuul ama bu Tamba mooy lewaatoo noonu ñaari mbër yaa ngi noonu di la waatoo ñàkk jariñu ama ñàkk ngi dox ci kawam spécial combat la diggante ñàkk jariñu ak bébé ama bu tamba laay laay la bëre door la ñaari mbër yaa ngi bëre ñoo ngi nuyu kilifay réew mi di leen fàttali ne drapeau bi drapeau jamaïcain la jam junne bu jeexee ci dag dëpp gi la ñu jëm grand combat bi diggante ñàkk jariñu ak Ama Tamba ñàkk jariñu Ama Tamba ñàkk jariñu Ama bu Tamba ñàkk jariñu Ama bu Tamba mbër yaa ngi lewaatoo ñàkk jariñu Tamba mais bëre dóor la bëre jël na ko la ilaha illallah la ilaha illallah ñàkk bu Tamba tuur na ko da bañ na oh ñàkk jariñu bu Tamba ñàkk nga koy dóor ñaari la ilaha illallah Ama jël mboot ma lu xew ñàkk jariñu Ama bu Tamba Ama bu Tamba salanaka kat santay la ilaha illallah ñàkk Thank you. ñàkk jariñu ñàkk jariñu ama bu tàmba spécial komba ñàkk jariñu ama bu Tamba spécial combat ñàkk jariñu moo ñu won gannaaw ngembo bu am lu ñuul ama bu Tamba mooy lewaatoo noonu ñaari mbër yaa ngi noonu di la waatoo ñàkk jariñu ama ñàkk a ngi dox ci kawam spécial combat sa diggante ñàkk jariñu ak bébé ama bu Tamba. laay laay la bëre door la ñaari mbër yaa ngi bëre ñoo ngi nuyu kilifay réew mi di leen fàttali ne drapeau bi drapeau jamaïcain la jam ci ne bu jeexee ci dag dëpp la ñu jëm grand combat bi diggante ñàkk jariñu ak ama bu Tamba ñàkk jariñu Ama bu Tamba ñàkk jariñu Ama bu Tamba ñàkk jariñu Ama bu Tamba ñaari mbër yaa ngi lewaatoo ñàkk jariñu Ama bu Tamba mais bëre dóor la bëre jël na ko laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah ñàkk jariñu Ama bu Tamba tuur na ko da bañ na oh ñàkk jariñu Ama bu Tamba ñàkk koy tuur ñaari laa ilaaha illallah Ama jël mboot ma lu jariñu Ama bu Tamba dal na ko Ama bu Tamba Ama bu Tamba la ilaha illallah bensidai jërë ngeen jëf mbokk yi ku ci nekk ci takkusaan am nga ko fii Mama Lamine mi mbër jàngil bëre yàgg yàgg des na la masa ñam Mama Lamine mooy yëkkati noonu loxoom kooku mooy Mama Lamine bu baara Flex moo ngi noonu Flex moo ngi noonu yëkkati na loxoom la doom ba pat ñaari mbëri ku ci nekk li nga jàpp ne sa manin la yaa ngi ci waaye benn takkusaan ñaari ndam mënu cee am kat yaa ngi tëgg woykat yaa ngi way lamb la ñuy seetaan juróomi combat lañ leen fi amaloon tey arbitre laaj na ñaari yi ndax pare nañu door mu daanu day am fàqal day am nooju day am mbappat day am arbitre génn na ci ñaari diggante ñaari mbëri dabul aar ji ñooñu fi woo ñaari mbëri Wuré wa dem na kër moo ñu wan gannaaw ngembo ngembu cuub bi flex la ñu jàkkaar lool ak lu munti di xew ak lu munti di doon ñaari xale yaa ngi bëre ku ci nekk li nga jàpp ne loolu boo ko defee am ndam rek yaa ngi ci kawam laa ilaaha illallah. Mama Lamine ñu doon tuddee loolu. kon bu dee maa ma. bu Gambie Rasul si defit la fu jógee di leen jox ak yaay ak Italie. Mama a ñëw fekk ah.

bii mooy cey bi combat. yéen ko bee mu dëgg. cey bi combat. door da koy may nga ne ko kaay door waaw lu xew waaw ñaari mbër yëpp kenn bërewul laa ilaaha illallaah sport la. jegante nañu Mama Lamine mu ngi dox ci kaw flex. Mama Lamine yaa ngi dox ci. flex. ay salax na ko suuf. ah ñaari woonin. We'll be somebody down. mais Félix mbaa du yàqu combat am teq teq ci la bokk te Mama Lamine teq warul jël xol di ko sëlëx suuf non xam nga lu ko waral yëfi sëlëx parce que moom a teq sa waa ji déplacé na teq dafa bokk ci làmb waaye dafa yàgg ci sport waaye itam ñu dem pileen bi da leen di xaar te man awa moo des pour nga jël pileen bi ñu ngi ñaan ngeen pare ndax ñu mën a dem balaa pileen bi di leen fi bàyyi. waaye itam woonin bu jar woone aksi na. full time half time. half time waaw lu ma la waxoon. Ah, woonin bu jar woone. waaw mu ngi nii aksi na. man combat baa ngi noonu départ nañu ñaari mbër yaa ngi noonu arbitre souffle na waaw waaw delloo nañ buum sa boy boy ba Eh, lii lañ commencé woon lii lañ commencé woon liñ commencé woon loolu lañ commencé waat. cey bi combat. waaw léegi comme lan ni mun nga wane waaw lii lan la nii tamit combat flex nag mun naa wane mu ngi ñaari boor ñàkk ak ñàkkam ñàkk ak ñàkkam ak ñàkkam bëree right now lu mu a mu daan du ñàkk waaye lu bëri rek loo a a waa lii la la waaw ñoom ñaar ñëpp am nañ woonin lamb day loolu soo xam ne foog nga sacrifié lamb refali yow yaa wone sa bopp ci ma wax def refali si match bi nga xool wax na nit ñi du ñàkk refali yow yaa def loo xam ne ñu ne refali mooy cey bi combat laay laay laay wali la ah voilà jàppante bi am na jàppante bi am na flex yi la bëggoon lu ma bëgg lu askan bi bëgg léegi askan bi bëgg am nañ ko benn contact nice sigil na ko bu tal da koo sigil. léegi foog nañ ñam na moromam flex maama lamin flex maama lamin ah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah amul ñu ne amul saa jël ñu ne jël amul nee laa ilaha illallah. waaw di xoolal man dama bëgg rafet daf ko daan jël bu rafete de loolu dégguma ko ah arbitre dafa soufflé waat na. waaw moo tax ma wax la ne arbitre. Félix dafa loxoom. yow yaay joxe sa bopp loo xamante ne gannaaw jii mu def nii war na Gambie mën na xoolaat grand combat bu raw parce que dafa jël responsabilité ah delloo waat nañu combat bi flex Mama Lamine ba tey waaw arbitre dafa soufflé balaa mu koy jëli laa ilaaha illallah Félix Mama Lamine bu doon may amee Félix lu ma koy wax mooy dama koy sacrifice waaw dama koy sacrifice dama koy jël na dem na dem parce que lii woo nit bu amee rek jéem a woo nit bu amee rek jéem a ak ñu xaar ñu seet ci gis arbitre bi Mama Lamine moom moo am ndam mu woo mu maa jox avertissement si bande résine daf ko tey moo mu def ko. nga bëree ak moom. Flex. waaw dama ko indi sañ-sañ. waaw entraînement. moo ngi kileem mu ne yow mba mbappat ngeen doon def te yow événement bi nga ñëw di bëree. ah, ah, ah ñu ne bëree dóor. waaw moom gisaagu dara sa mu ne MMA. waaw dafa war a jox cër. daf ma waroon a jox cër jox cër mboolem ku dafa MMA MMA dafa métti yombut. dëgg sañ-sañ. Mhm. moo la mun a man tey jii moom ma nekk Gambia moom ma ñor Gambia laay rëbb soo gisee ma ñëw fii. Mhm. xoolal dafa nekk loo xamante ko commencé. dëgg la booy fii laa ko commencé te man dama kontaan de wax gars yi man always am from Gambia. man Gambia moom ma ñor Baara moom ma ñor ñoom sañ-sañ laa ko indi. dañu gis da ngeen dem ba ci foo xamante yaa koy tekk mu ñëw jël xol mel ni ku la sëlax suuf ci bët dama sëlax suuf ci bët because dama ko wone moom moom moom mu si lambi gambe waaye xamul rule ak xamul rule si ak régulation yi xamul ne door tànk suuf su suroon am na suñu jàkkaarloo bi wax naa ko ko mu foog ne nag loolu waxi caaxle moo tax juri juri combat bi tey moo woon ko ko ndax jamono dama liggéey dama liggéey ndax boo ma gisee flex waxu flex waxoon naa leen ko nit ñi dañ dañ nit ñi dañ foogoon ne yaram mooy bëre yaram du bëre physique tempérament dëgg ak xel indi sañ-sañ bu mot mooy mooy daan lamb lan la ñuy sentu ci Mama Lamine yaa ngi ci événement bi di dóor waar ndax ñu ngi sentu nga amaat beneen combat ñoo bëre ko fii déggoo ma de boo gisee boo gisee ma jógee fii ba Italie ñëw biir Gambie indi wàll ay délégation indi wàll donc xoolal tey stade bi stade bi yëpp laa feesal tey ministre tey ah ñëpp Mama Lamine ñoo leen tax a jóg wax dëgg rek te lamb Gambie dama ko wax flex flex yow taxawoo ma jóg yoon la rek ma jaar xama xama lan moo tax a jóg yóbbu lambi Gambie in another level xam nga ñan la France Yaya Jambe xojantaan nañ ñëw France Yaya Jambe xojantaan man duma man damay jaar direct bu gaay ñëwee yéen laay waxal yéen ñetti mbóor yi woote leen ko looy wax fans yi li may wax fans yi man suma xol dafa fees wax dëgg yàlla maa ngi sant bopp doomi Gambien because tey ji dafa rafet xam nga after eight years xaw nine years nga ñëwaat delluwaat si arène bi doomi aadama yëpp génn si tey boo gisee stade bi su xool dafa fees tëb moo tax tey jii dara waru ma woon di gagné combat bi moo tax tey jii dama indi sañ-sañ dëgg parce que tey xool doomu aadama bu bàyyi seen soxla ñëw support si Mama Lamine waa Baara jugee fii ba Baara bàyyi seen soxla yëpp ñëw support si Mama Lamine xoolal tey stade bi su ma xool dafa seer a guy di sant di gërëm journaliste yi yéen tam journaliste yi kenn amul seen fay man su ma nekkee fële billaahi wallaahi tey boo gisee tey ma am ma gën a jël décision bi ñëwoon lambi Gambie yéen journaliste yi because damay toog ci kër gis aada cosaan bi bërëb bi dafa fees suma xool because li amul foofu noonu sottee ko saafara bi wax bi jàpp dafa rafet loolu moo gën a tax tey jii ma ñëwaat pour dekki li lambi Gambie. ñu gis ne sa adversaire kaaw na ci biir bërëb bi waaye gisuñ na nga eggale ko. because combat bi daf ma combat bi dafa nekk combat boo xam te ne nii dama war a tey dama war a tey bëre ko sur leer nañ waaw bu xam kaaw la man boobu xam naa ne kaw boobu ngeen mu doon nokki waaye xoolal du ma farak farak suma suma lam because xam naa ne maa ko mun su ndee xam na Boy Balla Boy Balla xam naa ko nee na pare na ah Boy Balla moom Boy Balla maa koy may chance fu mu nekk nii moom yàlla ko yàlla may wér ak tan dama dégg naa ko feebar yàlla ko yàlla may wér ak tan dégg naa ak manager mu ne pare na bay leen dem leen dem bay xamañu ma soxla xayantaan Yaya Jammeh